asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi mu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu jóge ci sunu kilifa gi toog Cheikh Habibullahi moom Cheikh Mamadul Fadal ak mboolem waa Touba ca kanam Cheikh Mamadul Basir Serigne Habibu nee na mi ngi lay nuyu moo waa mboolem waa ca kanam di fab seenum nuyoo ak seenum siyaar di ko teg sa loxo nga tegal leen ko ci loxol Cheikh Mouhamadul taxaa mi nga xam ne moo la fi yebal ñoom mi nga xam ne tey moo fi sëriñ Touba moo fi nekkal sëriñ bi te bokk ci mbooloo mii te waxtu wu ne muy wane ne ci la bokk di ko bégee muy ko jàpp mbooloo mi ku leen jàppale ko leen dooleel mu yebal la fi nga ñëw teewal ko fii tey kon ñuy fab sunu nuyoo sunu siyaar di la ko jox. di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ci bakki Sëriñ Tuubaa ndax yàggu Cheikh Mouhamadul Mountakha ndamul yoon murit la danaa ko feral di wax ne ko dalal nga xelum taalibe yi sagal nga seeni xol taalibe yi ñu ngi ñaan nga yàgg fi ndax soo fi yàggee loo fi gën a yàgg ndamul Sëriñ Tuubaa di gën a feeñ Tuubaa ci kanam nañ ko daa waxe lenn taxul leen a jug lu du liggéey Sëriñ Tuubaa fii ñu daje tayit day seeri ci lenn ci li ñuy liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ndax am na buñ tàmbali woon def nañ ko mu buñ njëkk ko tàmbali muy lan sax Cheikh Mouhamadou Mountakha moo tegoon xew yéen a àndoon ci ndigal Cheikh Sidi bi mu noppee Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ñëw ubbi ko ba tey ña nga cay faj bii nag mel na ne liggéey bi sax desandi na tuuti waaye li tax sëriñ Habib bu taamu woon ñu tàmbali ko daa bëggoon ñu lu ci weewu saxaw tedd wi nga xam ne lu ci waaye tàmbali rek dana barkeel waaye ñëw gii nag ñëw léemu la ñëw ñu barkeeloo ko ci weeru tedd wi la waaye bis bu lépp sottee ba ñi koy faj waa a tàmbali danañ ko woote boo xam ne danañ ko yëgal kilifa yëpp yëgal ko ñuy seqal réew mi ñëpp yëgal ko ñu yow wàllu faj ci réew mi yëpp yëgal ko bokki taal bi yëpp yëgal ko Touba ci kanam gépp ñu daje fi ubbi ko incha allahu taala waaye tey moom dañuy barkeeloo rek ci weer wi waaye nag ñu ngi la ci sant bu baax ci jéego yi nga def ñëw fekk si ko ci sa ndigalul kilifa Cheikh mun Mountakha di la wax ne boo demee nga xamal ne sëriñ bi ne ko nun day lenn taxu ñoo jug lu dut doon taalibe sëñ tubaa yu fa yéene liggéey sëñ tubaa ginnaaw bu nu yàlla dimbalee baaxe nu nu xam li nekk ci njariñu liggéey sëñ tubaa donte mën noo xam lépp amuñu genn bëgg amuñu jenn yitte amuñu jenn soxla yu dul liggéeyal sëñ tubaa te it ku koy liggéeyal nag dàkk ko ci ak bëggam liggéeyal ko ci te tubaabam ku ne xam na ne ak bëggam woon ndax daa wax ne pàkk bi li tax yéeme luuma fenn pàkk bi góor yàlla yu bari dañ koo sopp ma sopp ko suñ boo wax pàkk bi ne ko ñii ñëpp kat ñoo yem ci man te kenn ku ne da laa bëgg yow na yaa tànnal sa bopp koo ci bëgg nee pàkk bi tànn ma nee na moo tax yéeme luuma pàkk bi fenn daana wax ne fu ngeen ma mës a ngeen ma mën a séen ci àddina dama faa jaar di jàll waaye Tuubaa laa dëkk te fa laay ñibbi te la ma am lépp dana ma fa fekk kon nag alhamdulilah bi alamin bu nu suñ boo xam defalee tawfeex yi nekk Tuubaa yàlla dimbali nu am xalaatu liggéeyal Serigne tubaa ci dëkkam bi ci xalaat bu sell bu jógee ci jàmbaar ji toog di Cheikh Mamadou yu nga xam ne ñëpp xam nañ ne moom bëggam gépp Serigne Touba la ci layam boolewu Serigne Touba ak dara nga xamalal sëñ bi ne ko nanu ñaanal ba saytaane miy doge bu mu dog mukk ndax moom lu baax musu koo neex te du ko neex mukk mbirum sëriñ bi nag nee jëpp a tàkk te kenn mënatu koo fay waaye saytaane ne moom day jàmbaar yoo xam ne waxtu wu ne saa yu demee ba nga defee ne naagu na mu jugaat ndax lu lu baax moom du seetaan fenn mu defa taxaw kon ne sëriñ bi ginnaaw sëriñ bi bu nee na ak mbooloo mi topp ci ginnaawam ñu ngi sedd feddali seen positif seen laxasaay fas yéene ànd ak moom léegi sëñ Tuubaa bi ci dëkk bi ci nu mu ko bëggee fu mu ko bëggee lii ñu ciy def lépp tey bu ne woon na fi yem tey tey ma yem fi lu ñu ciy def it dàkk bëggu sëñ Tuubaa tax ñu di ko ci def te xam nañ ne bëggu sëriñ Tuubaa mooy ak bëggam te moom ba mbooloo mi jugee rek la la tàllaloon loxo mbooloo mi jox leen loxo ànd ak ñoom ba nëgën yi di ci wane waxtu wu ne yaakaar nañu dimbali nag ba yaakaaram yooyu mu ci am bu mu tas mukk boo demee na nga wax lool sëriñ bi ne ko nanu ñaanal ba yaakaar ji mu am mooy yaakaar sëriñ Tuubaa bu mu tas ci noonu ndax dëkk bi yaatu na lool kenn ku ne it xam na ne ñi fi jaar masa jaar nekk Cheikh Mouhamadou Moustapha ba nag ni ñëpp ay jàmbaar lañ ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ba ci moom mii fi nekk waaye waxtu wu ne dëkk bi day yokk te ab dëkk li fekk mi ngi yokk di am lu muy soxla lu mu dul mën a ñàkk te lu dëkk bi mën a soxla rek ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi suñ jaayante mën nañ ko def ci dëkk bi dëkk bi luñ ci nige nit wala ñu di ko ci nige keneen dafa noo neex waaye lu mu doon rek bu nu amee pas-pas ak mën nañ ko defal suñu bopp ndax sëñ bi lépp kon nag ndamul sëñ Tuubaa li nga xam ne waxtu wu ne mi ngi gën a feeñ yàlla na ci Tuubaa ci kanam bokk ba faaw te mel na ne mi ngi ciy feeñ dafa waxoon ne suñ boobam day na na nga wut ku samp dendaleeg man te ku samp dendaleeg man bis njël na ñëw suñ boobam màbb ko taxawal sama samp ba ñëpp sama xam ne sama taxaw sama samp taxaw waxoon nañ ne bi natt yi bi jeexee suñu borom de moo ma waxoon ne ma maa la doon teg natt yi jeex na te dootuma la ko teg te ku la bëgg te tegat lu du noonu dajeeg man kon nag ñun amuñ génn bëgg judut it te judut bokk ci ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal kon liggéey bii loolu rek lay seere am na yeneen yoo xam ne itam tàmbali woon nañ ko ñanga ca ngeen ñaanal na ci bu baax ba mën a àgg ba ubbi ko lépp ci kanam Cheikh Mouhamadul Mountakha ba naal yeneen naal ba àggale ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nii niw di siyaare Serigne Abibou Mbacke ibnu Cheikh du Fadal moom mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ci kanam ak mboolem taalibe yi topp ci ginnaaw ak mboolem bokk yi topp ci am te buñ ci tuddee Serigne Abdoul Ahad Mbacke mi Serigne Abibou mi doon yëkkati kàddu léegi te kàddu yi li ma waroon wax lépp tàbbi na ci biir kon ñu ngi nuyu Serigne bi di ko siyaare di ko sant bu baax. di ko gërëm ci yitteem ak pëstéefam ak ko bëggam Sëriñ Tuubaa ndax bañ ko xamee ba nëgëni loolu lañ xam ci moom wenn melokaan ak yoon doxin mooy jub tegu ci yoon bëgg Sëriñ Tuubaa tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi mosu ko wàcc kon nag loolu day dëgg ci moom ndax lu muy def li ñuy wax man tatabaa bi xëyri taban yii nacha nasaatu nasaatu aadatu xata turudduhu ila tabihi kama anna alma isa asqantahu wa tartahu aada ila tabihi min al buruda kon nit ki du jikkoom rek bu ko tàmbalee du ci sax waaye moom nag lii muy def yaakaar naa maa leen ko jëkk xam ndax xam ngeen nañ demee waaye lii laa mas a xam ci mos sa bopp sëñ Abdou Lahad mi itam mën na maa seere ci mu doolu ci kër si ñu bi na gëne yoon am kon nag eh, la ma leen waxoon ci daayira bi rek ñi ko jiite ñoo dalal xelum nit ñi ci liggéey bi te daayira bu ma dugg du ñetti at ba nag réalisé loolu kenn mos ko li ëpp solo nag mooy ki fi nekk Sëriñ Tuubaa rafetlu ko Cheikh Mouhamadou Mountakha saa su ci waxee da nga yëg ne wax ji wax waxee jum tibbi ci bi xam la ba day àgg ci day mel ne yéen jëm ci am ak lam ci bëgg wax sax na ko xol bi yéegi lam yu mu rufutu loolu nag yóbbaale na lépp kon nag ñu ngi gën a dalum xel ci yéen ndax li sëriñ Abdou Lahad wax léegi rek euh, dëkk bi moom sëriñ Touba moo ko moom te ñi gàddaay ñëw fii ñëpp itam njabootu sëriñ bi rek li ngeen di ngeen def ci dëkk bi ba oto yi ci jaar ak wàllu koraa bi di ngeen ci def ak yeneen ci des yëpp lépp di ay yitte yoo xam ne benn bu ci ne day mel ne boo ko defoon ci at doona waaye lépp itam yéen a ngi xool rek lu ngeen jàppee taalib yi tumuranke ne ci ngeen fekk leen ca dabu ci bëggu sëriñ bi kon nag ñu leen di sant bu baax di leen tey gën a dalum xel wala am yaqin sax ci liggéey bi ngir xam ne eh, boo gisee ni bi doxee rek nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko waaw te eh, kanam it lay jëm ndax sëriñ bi wax na leen ko te sëriñ bi du waxee ba kan lu mu leen wax rek eh, natt na ko ba xool ko wax doolu leen ko wax ndax sëriñ bi. Eh, ku ku ku ma natt ay waxam la waaye bu ngeen déggee xaal bi mu waxee ci yéen ngeen xam ne yaakaar ji dafa ëpp te noonu mu leen ko waxee ci seen teewaay tam bu ngeen fandikut noonu la koy seere kon nag ñi ngi sant ñëpp di soññu taalibe Serigne Touba yi nga xam ne euh, ñoom lu ñu jëf rek seen àll la ci tàbbi ñu gën cee yokk seen yitte gën cee yokk seen positif te xam ne eh, aw yoon la woo ne ku ci jaar la sa jëf dana àgg ci sëñ bi kon ñu ngi ci soñ ñëpp. di ñaan itam ñëpp gën koy def it gën ci def possible te lu ci waaye jëfoon itam nga gëm ne ci li ci kanam ci la saa ji dafa jox boo bu ko ñëpp marché def rek li ñu bëgg lépp danañ ko ci mën am kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.